di sant bu baax yàlla di jé di jaale sunu xarit sunu rakk sunu doom muy Lamine nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci njàmbaaram ci si euh, waar wi tey sox euh, yaayam génn àddina muy nekk lu tiis ñu di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jóge yàlla na ko yàlla musal ci njàqare bàmmeel ak tiisu safara tey ji weeru tedd la weeru am maanaa la boo xamante ne ku ci génn àddina ñun am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla taxawu. docteur am na lu tiis lu dal ci Thiès waaye nga taxaw fii taxaw bu rafet muy xale bi jigéen bu ñu assassiné ci Madina Fall. Euh, mhm. tiis yu mel noonu lan ngay wax ak bi ak yàlla euh, ah delloo lépp si sunu borom ñun ay jaam lañu taalibe lañu yàlla moom moom moom. lu mu moom su ko jëlee nu mu ko jëlee ci anam bu mu ko jëlee mën na jafe mën na metti waaye moom ci jëm boppam moom mi nga xamante ne moom borom jaam yi moo ko jël nit ki nag li mu moom su ko jëlee kenn du ko ko laaj noo noo ko ko jëlee ak kañ nga ko jëlee yàlla na ko lii nekk li koy yóbbu ci àjjana yàlla na tax li nga xamante ne lu mu fi mësoon a am ci ay tiis ak ci loo xamee ne ay manquement la yàlla yëpp boole ko yóbbu ko àjjana lii nag lu metti la dafay am nag neexul ci ay borom këram ci ay ay waajuram ndax xale la boo xam ne mi ngi ci buntu àddina waaye yàlla moo xam. waaw bésu tiis la mais naa mais tiis bi oyof na parce que bu ñu gisee nit ñi ni ñuy ñëwee accompagner yaayam. à sa dernière demeure dina dal xel vraiment donc man ànd li ma ci gëm mooy bu nit ki amee naqar nga partagé ko moom bu amee bànneex nga partagé kook moom tey nag ba ñu bésu saafaan la jémb laa ko yëg mais nu mu mënti def tey jour ouvrable la ñëpp xam nañu mais dama toute affaire cessante dama ko bàyyi ñëw Thiès ndax lamin ñëpp xam nañu kenn la ci man donc ma accompagner ko ñëw taxaw bokk ak moom xew bi naqar bi ba ñu denc yaayam à sa dernière demeure di ñaan nag suñu borom subhaanahu wa tey bésu dañ la ñaan rek lañu am di ñaan allahu subhanahu wa taala mu xare yaayu Lamine ga àjjana yi gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk waaw ñu dégg la nga def ci geste yu rafet te mm. bëggoo ko fësal dëgg la loolu lépp la dëgg la kooku Thiès yëpp kon naqarlu vraiment événement bu tragique bu metti la quand wax dëgg yàlla ndax ni mu demee bon mais nañuy ñaan yàlla yàlla am na lu mu wax ci addis ku demee ci yenn anami waaw da ngay nekk martyr maanaam dañ ko saf duur dina metti nii ci gisinu nit ñi deret yu bëri tuur ak tout sax mais souvent lu gën la ci moom di ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana bu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad salala Thiès yëpp naqarul nañ ko ni mu demeek yooyu mais dañ koy delloo borom bi vraiment ku nekk am na bés ku nekk ni ngay demee yàlla rëdd na ko gëm suñu borom delloo ko di ñaan mu xare ko ci àjjana yi gën a kawe vraiment ci yëpp naqaru nañ ko di massawu coonoom ay famille am mbokkam borom këram ñëpp daal vraiment di leen wax yàlla na yàlla may leen xolu muñ